cirë ngeen jëf sëtu Mbaba Jaxu Ba bi fi bàyyee ko di Mamadou Moustapha Ba mi ngi ci mboolem yéen kay ñu xëyndal bokk ci ñoom mu di ñu wax lenn ma envoyé te message wala ngeen may jéema woon ndax sama téléphone dañu ko colonné jamono ji yéen bi nañu moom Mamadou Moustapha Ba mi nga xam ne ñetti weer yu nekk da daan dem Grenoble ca France ngir rendez médical demoon na bay xamal ñooñu mi ne ab médecin nee na ko tension bi mu fanweer ginnaaw feebar bu gàtt bu ko tëraloon anki dina moom it xëy tëral xibaar bi ci xëta mu ni mu ko tuddee mooy homme état la sine nañu ku yaatu te yéewanoon dem soleil national nañu mu ne woon ndaanaan lu ñu ràññee woon lool ci mbiri finance ci réew mi kàdduy njaal yu président de la république Bassirou Diomaye Faye kàdduy seede yu président de la république ba woon di Macky Sall yépp ngi ci xët mu njëkk soleil national Moustapha Ba la mu waxoon député keroog ci assemblée nationale ba mu waxtaane ak ñoom ba leen di tàggu mu di maa ngi dem xam naa dinaa leen nam waxam jooje la ko journaliste ko xëy delloo mu di Moustapha di ñu wéetal Moustapha Ba ancien ministre des finances sur soi mu ko jàppe mooy ku fekk fu dara dul dara mu daral fa dara ba dara di dara de zéro à héros noonu la ko jàppe président la république bu Sénégal di Bassirou Diomaye Faye Macky Sall di sago Babacar Gaye yu muy waxee ne Mamadou Moustapha Ba bañ ko ko toroxal bokk li ko tax a dem ndax góor xajul ci yenn yi le mandat nañu mi ñàkk na kuréy ak faatum le quotidien nee nañu tax na ba waa coalition jàmm ak njariñ ak coalition takk wàllu jël dogalub suspendre seen campagne ngir wormaal jëmm dem ñu dem ci journal Tribune Bougane Gueye Dany boroom gëm sa bopp bokk ci coalition sàmm sa kàddu moo nekk conférence de presse bi la journal bi xëy ba dañuy wax ne Bougane defante ne lu rëy démb teg ci nag sànjaaf ginnaaw bi mu génnee ci kaso bi moom Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko la gonte woon démb fajar njiital marche des terroirs ànd nawle di Maguette Sène moom la xëyee muy leeral ci yéenekaay bi mu Maguette Sène ni ñu war a doxalee financement bu collectivité territoriale yi nee li tax ba collectivité territoriale yi mën cee génn li askan wi di xaar ci ñoom ñu mën ko def moo di at mu nekk état bi dafa war a jël xaalis xaalis bu toll ci 300 millions jox ko commune yi bu ko defee commune bu ca nekk di nga tabax lu mu gàtt-gàtt juróom-benn poste de santé ñeen fukki salle classe ak lu teg ay forage ak i courant ngir lu toll ci fanweeri village Maguette Sène ne coalition bi mu di àndu bés bu ñu yeggee assemblée nationale danañu xeex ni mu ware def lépp lu ñu mën ba gox yee di gis seen bopp bu baax a baax ci ni ñuy séddale ressources financières yu réew mi réew mi deux mois après maanaam ñaari weer ginnaaw mariage bi mu wasin liir bu tooy xepp àddunaam tukki tax mu faat liir ba